nekkoon invité démb ci dimanche ji ca émission boobu leen ñu tuppee grand jury moom Mary ñaan Niane daal di fay yëkkati nag ay kàddu di sàkku ci njiit yi ñu waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo ŋànk diine ji ci réewum Sénégal ngir ñu daal di dàq màggalu ko Touba ak gàmm gi ndax li ko waral di mbas mi lëmbee mim réew di Covid 19. wéy ga mi wéy di lëmbe mim réew ak kaaya nag yokk ga nga xamante ni ma ngi ko yokk jamono ji ci réewum Sénégal waaye nag yooyu lee kàddu jugee ci Mary Teuw Niane daal merloo ki nga xamante ne nii moo di Abdou Lahad Mbacké Gaynde ma mu yore lépp lu jëm ci communication wu lu ko Touba rafetluwul benn yoon yooyu lee kàddu nga xamante ni kii di Mary Teuw Niane dina ko yëkkati démb di wax ne nag seen sëriñ di wax ne nag Serigne Mountakha Bachir di xal général des Mourides séntu ndigal si kenn mat na mat goo xam ne buñ àggee si màggal gi li mu war a def dina ko def muy bépp décision boo xamante ne nii kii di Serigne Mountakha Bachir dina ko yëkkati jëme ko ci màggal googu le di ci séntu ndigalu kenn moom mooy xool rek li nga xamante nii moo war a nekk mu daal di koy def daal na say toftal ne bi mu Mountakha Bachir di yëkkati ay deux cent millions di ko jëmee ci xeex bi ñuy xeex ci xeex bi ñuy xeex mbas mi lëmbe mim réew di Covid 19 ak di ñaan ñi nga xamante ne nii ñoo di taalibe yi ñu daal di respecté li nga xamante ni moo di geste barier yi jëm ci grande mosque maanaam ci jumaa ji ñoom ñoo ñu lee fan la ñu nekkoon ki yëkkati nag yooyu lay kàddu moo di Abdou Lahat Mbacké Gaynde Fatma mu mel ne mer na lool ci kàddu yi nga xamante ne nii ak kii di Mary Teuw Niane daal dina koy yëkkati ngir ñu dàq li nga xamante ni moo di màggalu ko Touba ak gàmmu ci ren jii. ngir ñu dàq li nga xamante ni moo di màggalug Tuuba ak gàmmu ren jii